royaume démocratie lañu nekk si c'est pas le père rek c'est le fils non non on n'est pas dans un royaume on est dans démocratie et la démocratie c'est la pluralité des idées donc PDS am na ñoo xam ne ñoom ñoo fa nekk comme relève comme ni mu nekk PS nañ jiital ñooñu ñu dem ay primaire militants yi en quelque sorte ci boppam ñoom ñu tànn doy mu jiital leen mm. merci beaucoup euh, Cheikh dañuy jàll ci suñu dernière euh, et suñu ci suñu troisième et dernière émission rubrique euh, santé moom lay doon suñu invité nag mujjul ñëw docteur Ba xam naa ci suñu yeneen jotaay rek dinañ ko dinañ ko teewloo incha allah. Mm-hmm. Clarisse li ñu la doon waxtaanee mooy infrastructure lu ñu lu ñu lu ñu soxal la tout à peut-être may mun a laal na ko je sais pas toi mm-hmm. dina am solo bu baax a baax ñu xoolaat peut-être nañ ko def sax parce que gis nañ ni hôpital principal de Dakar ni ñu ko defaraatee c'est bien beau gis nañu hôpital Dantec aussi mais ñu boole ci région yi clarté am solo bu baax a baax ci lañ bokk. effectivement wàllu infrastructure dafa am dafa di li nga xam ne dafa am solo dañ si war a mun a bàyyi xel bu baax a baax muy si hôpital yi ak fu mu mun ti doon secteur bu mu ti doon infrastructure doon na si lu am solo hôpital yi war nañu xoolaat bu baax noonu lañuy ñuy defaree seeni bërëb pour nit ki nga xam ne moom mooy malade bi mu ñëwee mu nekk nga xam ne du am benn gàllankoor que ce soit si wàllum fu mu war a fi nga ko war a accueillir ak ni mu war a nekkee foofu noonu. conditions yi daal dañ ko war a xoolaat bu baax a baax. c' est très important Clarisse Cheikh Diagne euh, fi Clarisse daanelee rek laay ñëw ak yow mooy conditions yi hôpitaux yi mais euh, gis nañ Cheikh ni infrastructure yu bari Dakar moom lañ koy yemalee comme ni ma ko tuddee euh, tout ñu gis ne hôpital Dantec de Dakar mi ngi nekk en construction ñu ngi koy defaraat hôpital principal defar nañ ko ba mu baax mais pourquoi pas région bu nekk am benn hôpital principal wala département bu nekk am benn benn hôpital permettre. peut ki feebar war a def ay soins parce que des fois daf ñuy dal ñun nii yow dalay dal day dal may mun a dalay dal yow. Mm-hmm. sa benn mbokk bu bàyyee ko bawal cheikh mën na xëy ñëw ne damay ñëw Dakar def si analyse sa sa yaram du dawul cheikh euh, voilà pourquoi pas euh, ñu ñu ñu ñu ñu def lépp si région yi ki war a def ay analyse wala war a def rajo wala am leneen lu mu war a def ay soins mën ko def ci région yi bañ a ñëw biir Dakar. man je pense que souvent suñu autorité ñoom dañuy juum parce que à chaque fois dañuy tàmmali def ce qu'on appelle la chair avant les bœufs. Mhm. bu nee la chair avant les bœufs mooy da dégg tout le temps ñuy bëgg rey avec développement plan Sénégal émergent par ci par ça émergence alors que. on peut pas parler d'émergence sans parler d'infrastructure infrastructure ku ko wax mën a si génne li nga xam ne moom mooy infrastructure hôpitalière parce que ñun buñ bu ñu waxee infrastructure rek le Sénégalais day yaakaar ne c'est la construction des routes c'est la construction des ponts des autoroutes non yooyu infrastructure la bokk mooy l'infrastructure boo xam ne c'est dans le domaine sanitaire moo ëpp solo si doomu aadama c'est bien beau nga souligner ne hôpital Dantec ña ngi koy tabaxaat principal réhabilité nañ ko même hôpital fan aajé woon a construction parce que Fann yàgg na boo xoolee hôpital njëkk Sénégal si la bokk mhm. te da nga fay dem da gis certains bâtiments yoo xam ne wala dañuy gis ay bâtiments yi répondre aux normes internationales amul benn confort amul dara donc c'est tellement malheureux que au vingt et unième siècle le Sénégal confronté à de santé léegi nag beneen souci bi mooy comme ni nga ko waxee rek day nit day xëyee Diourbel wala mu xëyee Bambey wala mu xëyee Touba ñëw ne dafay def consultation à Dakar vous voyez gap bi nga xam ne moom la wala déficit bi nga xam ne moom la Dakar am entre les autres raisons donc c' est c' anormal waroon nañ même bu fekkee raison bu nekk mënul am benn hôpital boo xam ne da norme 1 lay nekk wala di niveau bu mag département bu nekk à la rigueur am ko. mais bon euh, c'est à saluer tamit parce que boo xoolee récemment les les deux à trois dernières années le président sortant construit na benn hôpital à Kédougou benn à Kaffrine am na bu ñuy construire récemment à Tivaouane normalement war na pare dans quelques mois war na pare am na tamit bu ñu defoon fële donc il y a ak bi nekk Touba donc c'est bien beau c'est bien de construire des des routes des des des ponts ainsi de suite mais sanitaire ak éducation ñu ëpp solo ci doomu aadama donc bu ñu xooloon ba nga xam ne peut-être dans la zone nord wala dans la zone est côté Tamba côté Matam yooyu yëpp dina benn hôpital boo xam ne hôpital bu mag a mag lay doon dina mën a li Koungheul la même chose am na sax benn hôpital ñu xool Podor ñu xool zone yooyu fexe ba zone yëpp ñu def benn maillage territorial boo xam ne ki nga xam ne tey dafa dëkk Koungheul bu feebaree dina mën a toog Koungheul faju ki dëkk Tamba bu feebaree dina mën a toog Tamba faju ki dëkk Ziguinchor la même chose ki dëkk Kédougou ne ki dëkk Touba à chaque fois bu feebaree day yaakaar ne moom bu ñëwul Dakar rek fajuwul non non il faudra tamit boo construire hôpital yi ba pare ñun souvent problème boobu la ñu dañuy construire ay hôpital ba pare mais li nga xam ne moom mooy plateau technique médical bi duñ ko duñ ko remplir te ce qui est malheureux sénégalais bu ñu di jógee Sénégal ba léegi di dem Maroc di faju gi c'est écœurant parce que marocains yi boo demee fac médecine Sénégal la jànge nan nga mën nan nga mën a expliquer ça yi fa la ñuy man am na benn benn docteur boo xam ne sama euh, allergie bu ma daanalee ki ma demoon bu may defal consultation c'est une marocaine moom moo ma doon consulter fii la jànge ñoom fii la jànge après ñu jóge dem ñibbi Maroc yow boo feebaree nga jóge Sénégal dem Maroc di faju lan nga ko mën a expliquer c'est parce que plateau médical bi nga xam ne moo adéquat ak norme internationale amuñu ko fii donc nag autorités yi foofu la ñuy xaar buñ construire ay hôpitaux ba pare na am plateau médical yoo xam ne day répondre norme internationale dangay gis benn hôpital boo xam ne sur une population de de 5000 habitants excusez-moi de 5000 habitants en quelque sorte exemple nga gis ñaari ñaari chirurgien la ñu am wala ñaari spécialiste la am bu ñu xëyee war ay milliers de personnes ñu war les consulter duñ consulter sa donc là tamit c'est un autre problème boo construire ay hôpitaux de norme internationale fexe ba am plateau technique médical bu baax na nga fexe ba mu am personnel bu doy mm. parce que là aussi c'est un autre problème Euh, spécialistes yi doy ñu en quelque sorte. Mm-hmm. donc l'État ci domaine boobu la war a demee. dakkuma la rendez-vous lu ne xaj ne parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, les personnels qualifiés ñi nga xam ne ñoom ñooy spécialistes doy ñu. te pourtant suñu école école de santé yi euh, fac médecine chaque jour mu génne ay ñoo xam ne c'est des diplômés diplômés yooyu état du leen recruter mu dugal leen ci marché du travail parce que ñooñu lañ soxla. à chaque fois da ngay dégg ñu ne état du recruter du recruter mais dans le de santé war nañ am personnel qualifié boo xam ne boo demee hôpital yow tey boo faree boo waree faju tey tey nga faju nga rentré sa kër ñibbi facilement mais da dem hôpital ñu jox la comme ni nga ko benn rendez boo xam ne c'est dans 3 mois dans 6 mois et on xamoo ci ban condition nga nekk ban urgence nga nekk lu ne mën naa arrivé donc pour remplir li nga xam plateau technique médical bi nañ ko élevé ba nga xam ne benn Sénégalais dootul jógee Sénégal di dem di faj yu Maroc muy dem Tunisie wala muy dem France troisièmement hôpital yëpp nañ fexe ba mooy spécialité yoo xam ne dina doy donc je pense que bu ñu defee loolu domaine santé lu si bëree bëri même bu ko réglé wut à 100 pour cent dinañ ko réglé à 90 pour cent Cheikh Diagne merci beaucoup mais mën na sa gis rapidement par rapport euh, ak thème bi. Euh, waaw Kër Sida xam nga secteur santé bi moom ci ay problème la dëkk euh, à chaque fois parce que à chaque fois dañuy xaar dara ci état du Sénégal te man yaakaar naa état di Sénégal du moom moo war a def lépp amaana am na partie bu am importance bi moo ko war a def mais askan wi tamit am nañ ci benn responsabilité parce que doomu réew réew mi nga boo waree def dara ci. ci li nga xamante ni mooy ci wàllum santé loolu euh, dañ koy rafetlu Kourizita ñu xool ci kaw Sadio Mané. Euh, mhm. moom tamit euh, lu tax mu tabax hôpital bu mag boobu fale ca Bambali parce que jafe yi nga xamante ne yaayam mosoon na ko jànkoonteel moo tax mu tabax léegi nag keneen ak keneen bu defoon lu mel noonu. voilà mhm. Kalidou Koulibaly tamit pare moom dafa dël dafa jël matériel bu tàkku yóbbu ko fale ca hôpital Ourossogui moom xam na ni ñoom soxla nañ ko parce que déjà dafa sori mënoo jógee Ourossogui ñëw ba Dakar. Mhm. Euh, di consulter wu parce que man dama yaakaar ni ñoom dañu foog ne Dakar rek mooy Sénégal donc am na ay dëkk yoo xamante ne dafa reculer euh, dañuy am problème ba pour am accès ci yenn yenn hôpitaux yi wala yenn poste de santé yi dañuy. transport bi sax problème la dañuy jël ay saret am na yoo xamante ne ay euh, jigéen ñu wérul la ñu yëg yéegal leen ci saret parfois sax dañuy ñàkk ci seen bakkan constat su ma ñëwee tamit ci hôpitaux yu mag yi Euh, da ngay dem ci hôpitaux yi ñu jox la rendez-vous sànq yaa ngi koy wax euh, am na sama benn euh, rakk dafa war a opérer nopp nopp yi mu dajalee xaalisam teg. ñu jox ko ay rendez-vous 6 mois wala 1 an léegi nag dafa obligé delluwaat dëkk ba toog di xaar léegi ku sa xaalis boobu bi nga xamante ni dañ koo dajale woon mm-hmm. euh, pour fajoo ko mun nga ko lekk mun nga ko mm-hmm. lekk nga toog benn diir ñu waa ñu woowaat la buñ la woowaatee tamit amoo xaalis boobu yoratoo ko loolu tamit day andi ay jafe-jafe mm-hmm. parce que keroog tamit euh, hôpital bu Ziguinchor maa ngi dégg ñu ne dafa manqué ay kit sanitaire mooy madaar ak omo yooyu te loolu warul am ba ba ñu tax ñuy ñuy tëj li nga xamante ne mooy salle d'opération bi Kourizita man euh, maa ngi liggéey ci hôpital mun naa jël sama xaalis dem jënd teg ko foofu keneen tamit teg ko foofu nga bañ a xaar waaw voilà nga bañ a xaar lépp ci état léegi nag boo nee état état rek nga croiser les bras nga foog ni état dina def lépp kon nax nga sa bopp moo tax ñu changer mentalité ñu changer comportement yi nga xamante ne moom la ñu la ñu am ci suñu dëkk bi comme ça ñu mën a avancer loolu mooy wax ci c'est important changer de comportement changer de mentalité merci mm-hmm. beaucoup Maïmouna mbokk yi l'émission tire à sa fin ma ñi ma bokkaloon plateau bi rek ñu tàggatoo ak yéen Diagne naar lay tàggatoo waa di la remercier di remercier ñoo bokkaloon plateau bi comme d'habitude rek seen intervention yu pertinente di remercier ñi jàpp ci émission bi à chaque fois ñi nekk derrière la caméra ak ñi nekk derrière la technique di remercier téléspectateurs Evidence TV di leen ñaanal ah, euh, bu am solo bi mu def Clarisse ci intervention bi di remercier téléspectateurs yi toogoon seen kanam écran bi ñu seetaan di leen jox. dig daje rek ba ëllëg incha allah. merci may beaucoup Maimouna Clarisse merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi lay jaajëfal Cruzita di gërëm Cheikh ak may euh, Maimouna ma bokk bokkaloon plateau bi di gërëm suñu mbokk internet ngeen ne ñoo ñu safoo suñu chaîne ak di suivre suñu émission bu set saa su nekk. merci beaucoup Clarisse aca mbokk yi mi ngi noonu l'émission tire ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax amoon nañ mbégte ak contentement saa su nekk comme ni ñu koy defee ñëw présenté leen seen émission bii di bët set sur votre chaîne préférée de l'évidence TV ñu remercier Fatou mi féete woon si ginnaaw caméra yi merci beaucoup waa régie ñu leen di jaajëfal bu baax a baax Massamba merci beaucoup monsieur X merci beaucoup euh, di gërëm Koumbaye Rachida ñi féete woon ci maquillage yi merci leen di bu baax ba léegi incha allah d'ici là Compétence TV.